fi dal dañu am problème accident yu am depuis juromi accident am fi xalé yu ñu rey ñeenti ak ben paa bu nga xamni dañu len ray di li mu dafa nu metti ci ñak dodan moo waral ndax jambat pour dekk bi am dodan ndax dekk yi nekk fi lu tolok juroom ñetti dekk yu nga xamni be amun ngi ci route nationale bi amuñu dodan te dinañ ñaan ñu def doodaan ndax bakkan yi faat bare na. accident bi nan la demé dem accident bi ben euh, particulier auto dafa joggé côté Rosso di ñew bu muy agsi mi ngi daw lu bare ben boy bi traversé fek mi ngi jàll nonu la ko jëlé daw continuer bëgg daw daw dem ñu xale bi am na la am jigen la bu mu démé ñu top ko ba ci gendarmerie fa lañ ñu ko jàppee delloosi ko kon nak li ni wax moy état bi dafa dafa nu war dimbali ñu defaral ñu doodaan ndax doodaan tey tey moo tax ñu mën a dem normal école baa ngi nii deux cent personnes mooy jàll ci école bi ñooy ñëw booleeg nit ñi nga xam ne dañuy traversé ak saret yi ak nag yi ak bay mi yëpp yi dem kon nag li ñuy ñaan ci gouvernement bi nañu taxaw defaral dëkk bi doodaan bañu ñu ci dara ndax boo demee ci leen dem mboojeen jagambal njung njaay bëri ndelle sawañ lamsaar Njol, pom gendarme dëkk yoy ben amu ci dal ndax li ni limay wax moy ndax dëkk yi fi walu gi li genn ci ciep ak soble di liggey di dundal askan wi ñuy ñu am yenn yi dafa wari ma ñaaw nañu ñu jappalé ci lepp li nga xamni bëgg nañu ko ñu defal nu ko nu soxlawuñu dara yaqunu fi fii auto rey ñu nit jaay ñu ya dorog jaay ñu yamba xale yi dañu takku pour liggéey seen yi dañu takku pour liggéey seen ñax xale daan lekk moom la ñu nekk kon ne xale yi lu ñu ànd suba ba jant soo noo ngi ci bu laajee bakkan nu def ko bu laajee leneen nu def ko ragalu nu ci arrière nu wasalaam. lépp coow li li muy bari bari bari lenn la. ñun ñu ceeb ñaanuñu suukar ñaanuñu warga lenn la ñu bëgg mooy ñett yi doodaan ci dëkk bi. ñaata nit ñaata nit lañ fi rey. bari na dañu dañu wax cinq personnes ma ëpp nag am na ñoo xam ne bu ñu dammee sa na mënatoo liggéey kooku rey nan la. combien de personnes lañu fi damm seen i tànk fii ma ay handicapé ma ni cette situation c'est grave dafa doy dafa doy dafa doy sa ma ni ça c'est arrête arrête maintenant. dafay jeex tey bu jeexul tey mani na jeex tey wala ñun ñu jeex tey tak